yéene kaay gi nee na benn journaliste la ak benn caméraman ak benn chauffeur am na ñaar ñoo xam ne am na ñu si ay gaañu-gaañu yu métte métte presse bu Sénégal ma ngi ci dëcc njiitu réew mi di président Macky Sall ni dem na ci bërëb ba nga xam ne fa la l'accident ba amee yéene kaay gi di fu ak l'observateur nee na ci yoonu Kédougou wi fa la l'accident ba amee am na ku ñuy wax Abdou Mamadou Sy kookee bokk na si ñi ñàkk bakkanam ak ku ñuy wax Mamadou Diallo ak Ousmane Diaye yéene moo def njombeka moo def girawalika yéene kaay gi na camion malien bii di Moulin de Bamako yéenekaay gi ne na ki nga xam ne nag mooy chauffeur ba jamono ji teg nañu ko loxo yéenekaay gi di réew mi quotidien ne na cortège présidentiel yi depuis ba léegi gis na ne fu Macky Sall fa boo rek lu ci ëpp dina am ñoo xam ne danañu si ñàkk seen bakkaan yéenekaay gi ne na ji atum 2012 am na tournée bu Macky Sall doon def yenn ci otoom yi ca sigi cooram mbëkkoon nañu ab xale ba mu ñàkk bakkanam ci atum am na ko ñuy wax buubu si kooke nag ci génn na 2014 ci cortège su Macky Sall ci Touba am na ci kenn koo xam ne cortège bi moo ko rayoon ci 2018 am na benn xale boo xam ne juróom-ñetti at la am cortège su Macky Sall moo ko rey sa Sédhiou 2019 am na ñeent gendarme yoo xam ne ci cortège su Macky Sall sa Ziguinchor fa la ñu ñàkkee seen bakkana tey jii nag ñetti agent yu nekk ci groupe Leral ñàkk nañu seen bakkana yéen i kaay gi nee na en tout cas li am ba des daal mooy cortège présidentiel bi ba léegi bëri na ñoo xam ne ñoo ngi ci ñàkk seen bakkana yéen i kaay gi di réew mi quotidien ak enquête ak l'observateur xëy ci boy ji nga xamante ni moom nee na dañu ko war a atte ndax li mu tëdd ci kasu bi bëri na loola jamono ji nag nee na bu ñu tëj dara bu ñu tëj na bu ñu saañum ngeera ndax nee na dafa bëgg sacrifier boppam ndax injustice bi nga xamante ni moom la ñu ko teg moo tax mu rëcc jamono ji di ko xeex moom booy jinne jamono ji daat nay wax ne nag bis bu ñu demee ba nga xam ne jàpp nañu ab atte ma bu ko koy avocat yégalee lépp lu mu jàppoon dina ko bàyyi dem ca tribunal ba ñu atte ko jamono ji nee na génnul Sénégal benn yoon ma ngi ci réew mi toog jàpp njàmmuram yéen a kaay gi de Le Quotidien ñu fekk fa booy jinne nee na liberté provisoire bi nga xam ne yàgg na ko ñaan jamono ji daf koo forcel boppam nee na dafa jëlal boppam liberté provisoire bi ndax daf koo ñaan ñu lànk ko koo maye mu jëlal ko boppam yéen a kaay gii de Les Échos nee na garde pénitentiaire yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaso bu Camp Pénal jamono ji teg nañu leen loxo te directeur général bu kaso yi jamono ji soo moytuwulee nag maanaam danañu ko dàq yéen a gi nee na état bu Sénégal décidé na jël na ay matukaay ngir leeral lépp yéen a kaay gi de L'Observateur nee na garde pénitentiaire yi tey ji danañu leen déglu yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Boy Djiné lu toll ci fukk ak ñaar yoo xam ne rëcc na laal ko est-ce suñu kaso yi am na sécurité yéen kaay gi nee na en tout cas Boy Djiné jamono ji ma ngi fonton ñi nga xam ne ñooy suñu autorité yi yéen kaay gi di Vox Populi la seul témoin xëy dañu xibaar naan ñu journaliste bi di Pam Ndiaye niki démb àtte nañu ko tëj nañu ko lu toll ci benn atu kaso ñetti weer yi lay tëdd yéen kaay gi nee def nañu appel yéen kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Tina muy wax ci lu jëm ci wàllum loi parrainage bi nga xam ne waa CEDEAO sant nañu ñu jëlee ko fi maître Abdoulaye Tina andi na ci ay leeral su dee maanaam respecté wuñu ko te sénégalais war nañoo tontu ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre atum 2021 yéen a kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu examen blanc bi nga xam ne moom ngeen doon dégg fan yi ñu génn ca lycée bu Rufisque ñu doon wax ne dafa am texte anglais boo xam ne danoon def promotion wàllum góor jigéen journal bi nee na lu jëm ci wàllum texte boo xam ne dafay kañ góor jigéen di ko doole la yàgg naa daw yàgg nañu ko gis texte boobu ci lycée yi nga xam ne ñoo nekk ci Rufisque a kaay gi di direct news xëy di càmbara bi fan la mbir mi nag dafa mel ni ak laj def cee am ndax ñu bëri ci askan wi jamono ci dañoo lànk kandaare bañ a vacciné wu est ce que jël li nga xam ne mooy vaccin yi daal koy delloo bala mu yàqu ci réew mi yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy na nag ci njëg yu baree bari ana lan moo tax mu yokk yéen kaay gi di Dakar Times am na benn ancien médecin bu yaayaa jàmme boo xam ne def na révélation yu doy waar doy waar nee na yaayaa jàmme ay jamono na liste boo xam ne maanaam daf koo tegoon ngir ñooñu ñëpp mu daal di leen ne ci réewum Gambie la ñu autorité sénégalais yoo xam ne Yaya Jammeh ma ngi doon lal ay pexe ngir nag daal leen di faat ku ci mel ni maître Abdoulaye Wade doom ji di Karim Wade Abdoulaye Baldé maire bu Ziguinchor ak Idrissa Seck yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na élection locale yi ci Benno Bokk Yaakaar mbir mi du yomb dina tàng jër ndax fii ci Ndakaaru Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr mbir ma du yomb waaye nag ci diwaanu Podor diggante Racine Sy ak Aïssata Tall Sall diwaanu Kaffrine diggante Abdoulaye Wilane ak Abdoulaye Sow ca Saint-Louis diggante Mansour Faye ak ki nga xam ne mooy Mary Teuw Niane yéen gi nee na bëri na ay gox tamit yoo xam ne maanaam mbir ma piccong mbaaloogo na fa bëree fu ci mel ni Diourbel ak Thiès ak Kaolack ba Ziguinchor ba Kolda yéen a kaay gi de la témoigné njiitu mi di président Macky Sall ni ki démb ci Kédougou nee na tournée yi nga xam ne ma ngi koy def amul lenn loo xam ne laale na ci ak politique nee na lépp tournée économique la yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Bombardier nee na Balla Gaye 2 su ma ko jàppee dina way mbay te Balla Gaye 2 terewuma nelaw su dee nag nangu naa bëree ñaari simili laa koy daan xanaa kay lenn rek mooy tax du ko daan si ñaari simili Balla nekk